السلام كلما خفي فاجتنب الإثم الجلي والخفي فكان ذا النظم على بحر الرجز ملتمسا فيه سدادا من عوز لعل فيه للنبي تبصره والله نسأل الهدى والمغفرة والعون والتوفيق والإخلاص والتوبة النصوح والخلاص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 asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñëwaat nañ tey jii ci jataayu gastu bi ngeen tàmm ama kaddu diine ji di ko amee fii ci 2 tey jii tam kaddu gi tànnal leen tomb bu am solo waaye invité leen fi tam gan gu am solo gan gi mooy al imam Mouhamadul Amin Sakho al imam Mouhamadul Amin Sakho bokk na ci doomu soxna yi nga xam ne wax dëgg yàlla ba jàng jotee. defoon na jomam ci jàng bay am lu ko yàlla baaxee ci xam-xam boo xam ne wax dëgg yàlla mën na cee sant yàlla bu baax a baax ak képp ku ko xam lii firndeel loolu mooy sëñ Mansour radiallahu taala anhu borom daara yi bokk na ci ñi mu gënoon a naw ci xale yi nekk ci daara ji ba tax na jumaam jii nekk fii ci golf ba dara desul lu dul tànnal ko imaam moom rek la xelam dajoon mu def ko imaam kon Mouhamad al Amin Sakho mooy imaam jumaa ji nekk golf di doomu daara di sëriñ daara imam Mouhamed Lamine salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah alhamdulilah alladi manna ala hadihi al ummati bi rijalin muminina salihin yujahiduuna fi llahi wala yaxaafuuna fi jihadihim lawmata laimin wala gaflata gafilin yubaayicuunahu ala muwasalati aljihadi alxaalisi li wajhi alkarim li yabluga hada addiinu ma balaqa alleyl wa naar wasalaatu wasalaamu ala almabuusi rahmatan lil alamin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbi wa sallim bokki jullit yi ñuy jàkkaarloo ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ci weeru tedd wi ci waxtu wu tedd wi ci bés bu tedd bii di nuyu ñu ñu fekk ci kër gi sunu magu daara sunu mbokk sunu xarit fadilatal imam ahmad daam njaay lay nuyu baax les ziyaara di rafetlu dalal gi ñu dalal di nuyu nag sama turandoo sama xarit sama soppe nga xam ni sama ñëw fii mu ngi jaare ci loxoom mooy fadilatul imam wal oustaz al muxadram alhaaji amin daraame maa ngi koy nuyu baax di nuyu ñu ñuy seetaan réew mi ak ci bitim réew fu waay mën a nekk rek ñu ngi lay wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu sama càmmooñ kii jàpp ci émission bi ba tax wax dëgg yàlla mu saf xorom lool macha allah mooy sama jarbaat di seen xarit di seen soppe alhaaji Mouhamad Al Amin Dramé wala Sakho <laughs> tey de ganu saaxo Sakho laa am moom ah, <laughs> imaam euh, am mbégte bu baax a baax dalal Cheikh Mouhamadul Amin hmm. waaye balaa ñuy dugg si waxtaan wi nag yóbbante àq la hmm. euh, wax dëgg yàlla li ma yóbbante ci nuyoo ci jullit ñi jëmale ko ci yow kenn mënul xam nu mu toll da bari na bari goo xam ne sax daf ma yéem hmm. di rafetlu xikam yi ren ni mu tëddee ak njàng mi nga xam ne ñu ngi ko ciy jëlee ñoom ñëpp daal ñu ngi lay ñaanal di rafetlu bu baax a baax a baax a baax a baax xikam yi di wax ne am na fi amal na leen njëriñ daal bu ma doon lim waa waxtu wi day jeex waaye bu ñu ma déggee dinañ xam ne seen yóbbante jottali naa ko salaam mm. na sula jërëjëf Bamba Lamine jërëjëf yàlla na yàlla nangul ñun ñëpp rek waaw te lu ci jógee ci yow ñu bokk ñun ñëpp alhaaji Mouhamadul Amine euh, Sakho incha allah ñu ngi jëm ci bu soobee yàlla ay fan rek génn ci jaamu yàlla gu réy gi ñu nekk nii muy weeru koor wi yàlla na ko yàlla nangu amiin te yàlla bu ren nekk suñu mu <coughs> koor euh, tomb bi ma bëgg ñu waxtaane ko mooy tomb bu xaw a tumuranke ci jàng ci téere yi waaye dafa tumuranke ci jëfe mooy wàllum ndono est-ce que jàppaloo na ndono day bëgg a xew yi ci Sénégal ah, jërëjëf fadilatul imam li nga wax ñun aima yëpp yëg nañ ko mm. dafa mel ni sénégalais bi ni ñu koy waxee bëgg na diine ji waaye dafa mel ni ñemewu ko maanaam daal dafa mel ni moom bëggul diine àtteel ko bëgg na nag mu ne ko defal mu def waaye bu ko teree lenn yi wala mu jox ko yeneen place yi dafa mel ni du bëgg a feeñ foofu loolu nag dañ ko dund ci imaam yi ci misaal Ahmad Daam xam nga ni yàlla dafa indi dund indi dee yaakaar naa sax niñ ko jàngee dafa mel ni dee njëkk a judd xalaxal mawta wal xayaata li yabluwakum ayukum ahsanu amalan kooku nag bët bu set mu jëkk mu jëkkati fi nit indiwaat fi nit ki mu indi dañ la woo yow imaam ne la kaay tuddal ñu ko donte sax baay ja la war euh, tudd doom baay moo koy defal boppam mhm. ñu woote la yow imaam bu fi jógee ne la kaay julleel ñu ko donte kooku mbokk yi la war waaye adab senegal mooy imaam mooy jullee imaam daam Ahmad su ma nijaay soo tuddee ba noppi mu jógee fi nga rob ñoom dafa mel ni foofu la diine kooka yem mhm. te am na lu ca topp mhm. bu bés ba del see sax am na ñu lay woo ne la kaay jàngal ko kaamil ñaanal ko waaye foofu lañuy taxaw ma ne waaw xanaa boog yàlla waxul ni kii lim fi bàyyi war nañ ko am ñu ko jox ñu ko moom ñëpp seetaan ko te yonent bi saa sallam bàttele ko ne inna allaha lam yakil qismata mawarisikum ila nabiyin mursalin wala wala malakin muqarrabin walakin tawalla bayaanaha fa qassamaha abyana taq abyana taqsimin yonent bi ne yàlla azaka kenn doyu ko ci boppam moo ko séddalee boppam ña ko moom moo leen ko jox innama sadaqaatu lil fuqaraa yi ba aaya ja jeex mais ci ndono yàlla dafa jaare ci làmmiñ yonent bi ne ko bëgg naa la lool fonk naa la waaye li nit ñi eeyoo maa xam nuñ ko war a defee yonent bi ne yàlla moom ci boppam moo ñëw di séddale joxal ma lii diw nangam joxal ma lii diw nangam joxal ma lii diw nangam joxu ko malaaka joxu ko kenn waaw bu baax kon sénégalais bi lu tax su robee ba dëj ba jaale la ca des ñu bàyyi ko noonu yow imaam ba ko jullee otoom di lay rombe di daw nga xam ne oto bi am na ku ko war a moom kër ga ñu dëkkee ko depense ba ñu continuer di dund loolu nag laa tuddee sarqatu qalbin cri de cœur laa am ci lool ba pare ñu bëgg a def nag campagne jaaree ko ci média pour pour sensibiliser nit ñi ñu dellu ila masarillah wa masdarihi fa yàlla tëralee mbir ya ñu delloo ko fa ki fi jógee lam bàyyi ñu seet ka ko moom ñu jox ko ko te mooy tamalluku tarikatil mayiti man bi bihi charan lim fi bàyyi ki ko moom ñu ne ko diw moom lii kooku nag boobaa jeex na tabadulu mil ki ñëw bu mayee bu lekkee bu saraxee bu waayee moo moom waaye lim moom daal imaam ñu ngi sàkku nit ñi jaare ko ci weeru koor wi ñuy miraas jàng maa ngi fi kon nag wax dëgg yàlla jëfandikoo bi dafa war a ñëw ma ñëwaat tuuti ci wax yonent bi sallallahu alayhi nga xam ne bàyyi na lii xam bàyyi na xam-xam bi côté dama seetlu benn bés ñu toog di waxtaan ak sunu sëriñ sëñ Aliou Sakho ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na yàlla yokk leeram te taas ci barkeem mu ne eh, dafa dégg kuñ ne bari na xam-xam mu yónni taali bi ñu laaj ko benn masala naxu mu tontu ko tontu bu rafet ñu demaat ñu laaj ko masala miraas mais xamul ko ba ñëwee sëñ Aliou ba ko waxee mu ne ah ko de genn wàll xam-xam la amagum kon mm-hmm. kon nit ki imam lu mu jàng-jàng te jàngagul miraas genn wàll xam-xam la amagum yonent moo ko wax mm-hmm. taallamu lfaraida wa allimuha nnaas mm-hmm. mu ne jàng leen miraas te jàngale ko mm-hmm. fa innaha awalu ilmin yuntazau min ummati li ñuy njëkk a rocc sama xeet mooy miraas imaam alxaaj Dramé gis nga loolu tey yuntasau min ummati nazu la wax maanaam bu loolu génne bu métti dañ koy rocc bokkut ak jël bokkut ak axsu bokkut ak taxawil mais te yuntazau la wax dañ koy rocc min ummati dañ koy foqat ci min ummati sama xeet wa innaha tunsa yéen ci bi ne dañ koy fàtte mu bàttale yooyu yëpp ñu war ci taxaw war ko bàyyi xel war ko lijjanti ki fi jógee mu tëdd dana baax olof nag am na lu muy wax sax demeewul noonu léeg-léeg ñaan naan nañ ko miraas ndax borom tëdd de nit ñaay tëdd kay waaye borom moom fa mu tëdd tëdd na fa mais daal maa ngi ñaan ni ñuy jullee niw di koy tuddee doom bu fi jógee lam moom nañ ko séddale ci ne ko yàlla waxee buñ ko séddalee ci niñ ko bëggee loolu it dañ ci ñëw ci biir wax loolu am na solo Mouhamadou Lamine li nga wax am na solo ndax euh, euh, waxuma sax ne nit ñi duñu nangoo ti di miras waaye yow wane nga sax ne miras xam-xam la boo xam ne ñi ko ñi koy man ci jamono ju ne duñ bëri duñ bëri waaye ñi ko mënoon sax mën nañ ko fàtte bien loolu lu lu jar a bàyyi xel la mm. mais nañ dem ci ñi nga xam ne ñoo ko war a jëfe mm. léegi at fan yi rek maa ngi doon jàngale ci maa ngi doon nafar ak jullit yi ci benn xikma boo xam ne Ibn Ataay laay hmm. moo ko wax di wax ne eh, eh, eh, li gën ci looy ñaan yàlla hmm. mooy nga ñaan ko hmm. mu may la nga mën a def li mu la digal léegi loolu ci biir déggin ba li mu tekki mooy yàlla li mu la digal ci la sa intérêt nekk est-ce que du nit ñi dañoo jàpp ne ni yàlla séddalee baaxul bien nit ñi dañoo jàpp ne ni yàlla séddalee baaxul maa ngi dellu ci imam Suhayli waaw bi mu ñëwee di tafsir alquran tafsiram bi imam fanweeri xaaj la mm-hmm. xaaj bu ne mat na cinq cent paas mm-hmm. kooku sonn na ci alquran xilaala akthar min salasina sana aw am taqriban mm-hmm. ci la tafsir alquran bi mu am fanweeri at la ko commencé tafsir ba am juróom benn fukki at ma gis benn commentaire bu mu def ci li ñuy waxtaane mu ne nadartu fi ma bayyanahu llahu fi kitaabihi min xalaalin wa xaraamin wa axkaamin wa xuduudin fa lam ajidu iftataa cheyan bi ma ftataa bihi ayat alfaraidi wala xatama bi ma xatama bi biha fa innahu qaala fi awliya yuusikum foofu la taxaw mu ne dama liir ci li yàlla wax ci alquran mais ma yéemu waaye mu ne yàlla ni mu yëgee ne sénégalais yi ak doomu aadama yi daa ñu bañ miraas moo tax bi mu ñëwee waxut yamurukum waqul yansahakum wa innama qaala yuusikum al muusi huna huwa allah kii dénkaane mooy yàlla tan bi an ala hikmatihi yàlla soayi luy ne yàlla dafay xamle fooram moo tax bi mu ñëw wax ko yonent bi wax leen qul yaaxusu al bintu nisfa isa isa isan faradat waxul ne ko na na doom bu jigéen taaxusul bintu isan faradat waaye daf ne ko joxal ma leen mhm. koo fu yàllaa ngi wane ne kon Ah, dinaa jox li kulli mustahi aati uti kulli di xaqin xaqahu ku nekk ci ñuy war a miraas ñu war a doon danaa ko jox lam yelloo te bu mer te na xam ne na ma ko tëralee noona la buñ ko defee nag tey bi nga xam ne ni ñu tuddee intellectuel juddu na xam-xamu euh, technologie juddu na xam-xamu taqdiraat nattale xam-xamu égalité juddu xam-xamu émancipation euh, euh, yooyu juddu ah ci lay yenn xel yi nga xam ne seen aqida dëgërul ñu commencé nag ne yàlla niñ defee d'accord ñu te gis nga imaam yàlla ku garaaw la daf ñu xam bi mu commencé baqara daf na euh, alif laam miim zaalika laa daf dal muttaqiin allaziina yu'minuuna li njëkk lijjanti mooy li muy wax ñu nangu ko njëkk balaa salaata ñëw yàlla balaa bëgg nga def dara da nga koy nangul ku julli te gëmoo yàlla nangu nangu ko ku woor te gëmoo yàlla nangu ko kon lim njëkk lijjanti mooy yu'minuuna bil ghaybi mm-hmm. yu'minuuna bil ghaybi imaam Suwayli mu ne mooy lu ma def rek noona la ci la yàlla ñëw nag ba julli di ne d'accord nañ loo def noona la radina samina wa atana mu indi miraas nag daal di ko ni kii war a am kii warta am kii war a donn kii warta donn ku ma jox li nga jël doyloo ko te ñaan barke am na koo xam ni sumun la donn barke ba mu am ci gétt ka doonoon ni sif jeex na te yàlla def lépp dëgg déglu yàlla ci àtte loolu am na solo Oustaz Mouhamadou Lamine li nga wax nii ci aaye bi waa am na daw na yaram hmm. mooy borom xam-xam bu mag boobu wax ne Euh, gës jàng na alxuraan mais ni mu gis borom bi tabaaraka wa taala mu ubbee ko aaye miraas yi wala mu tëje leen ko néew na mu gis ko ci beneen ndigal mm-hmm. mu jël baatu yuusikum mm-hmm. yuusikum mën nañ ko firi ci wolof de maa ngi leen di ñaan. ah waaw maa ngi leen di maa ngi dafa mel ni yàlla. Hmm. xamoon na ni. Hmm. lim ñu sant du duñu duñu sawar ci def mu mel ni kuy wax ci doomam. Hmm. maa ngi leen di ñaan. wallaay ndeysaan ngeen séddale loolu am solo Mouhamed Lamine. waaw euh, euh, imaam fi mu ubbee am na solo. waaw waaw imaam fi mu ubbee am na solo waaye imaam xam nga professeur Mouhamed Lamine Sakho. moom thème bi da cee war a wax. parce que tey mun nañu wax ne ci ñi nga xam ne mën ñi gën a mën miraas ci doomi daara yi ci la bokk. parce que bu koy jàngale ak lu mu compliqué jarul muy xool téere mhm. te loolu tamit ndoona la mu jëlee ko ci sëñ Alioune Sakho donc tey lii muy wax nii mhm. lum lum lu mu pratiqué la mhm. lu mu xam la bon léegi nag imam euh, xam nga fi ñu toll euh, ñun dafa am lu bëree bari suñu diine dañ ko war a xoolaat parce que ñu bëri si julli ñu léegi seen diine mooy yuminuuna bi baadil kitab wa na bi baad loolu mooy danger bi maanaam alxuraan lépp gëmuñu ko lenn lañ ci gëm leneen li ñu weddi ko bokk na ci li ñu gën weddi mooy miraas fii bari na koo xam ne Abdallahi la tudd Moussa Ibrahim Fatimatu Khadijatu bu miraas jotee day lànk ne du ma déggal yàlla bu fekkee ci charia lañ jëm mu mu jox góor ñaar jigéen benn man tribunal laa jëm donc dañu lànk fii moom déggaluñ fi yàlla mu mel ni aussi euh, tër tër yi nga xam ne moo fi am da dafa mel ni genre complot bu nekk ci biir ba nga xam ne tey dañu dañu fas yéene rey miraas mm-hmm. carrément ba nga xam ne bi yàlla tëral kenn dootu ko def mm-hmm. mais bi tubaab bi tëral boobu la ñuy def mm-hmm. loolu loolu complication la feeg nag càmbaruñu affaire yi wut lu ñu tëral ba xam ne jullit yi dinañ am gëm gu dëggu dëggu dëggu xam ne yàlla euh, miraas ci seen diine la bokk ñu dellu ci problème bi day gën di kii euh, yaa jàpp naa ne ni ñu ci war a waxee dëgg dëgg des na li nga wax dafa des waaw Mohamed nga wax dëgg la te loolu danaa ci interpellé imaam euh, Mouhamed Al Amin Sakho ndax nit ñi suñu bañee déggal yàlla ci miraas man ci sama xalaatu bopp mooy ñaar rek moo tax benn ñu bañ a jëli effectivement ni yàlla dina gën ci ñoom te loolu problème la loolu bu fekkee loolu am na am na njàngale wu des wala ñu bañ a xam ne même bu fekkee xamuñ lu tax mu ki dañ ko war a def ndax li li leen ko yàlla digal loolu tam beneen dimension est ce que loolu njàngale bi desul est ce que njàngale bi desul dëgg la njàngale bi desul dañuy wax waayu diine yi ji ñu jot ci comprendre ko dafa des mm-hmm. surtout nag muamalaat mm-hmm. sooy jàng mabadi yi lu mel ni risaala ak yooyu yëpp nu ñuy jullee la lay jàngal mm-hmm. nu ñuy azakale nu ñuy ajee màkka waaye li jullit séq ak morom jëflante yi moo des ba nga xam ne sénégalais bi am na jëflante boo ko wax mbedd mi ñoom xamuñ loolu wax naa ci conférence waa AFCAP suñu koñ bi maa ngi leen nuyu au passage ne leen mbaa yëg ngeen ne jigéen su amee quinze mille ci média laa nekk dix mille francs yi sañu caa def lu borom këram yëgul cinq mille bi kese la sañ def lu borom këram yëgul dañ koo yiir ci sulu si alalam ñaari sulu si mais dafa indi débat seen biir xaw a betti xaw a beese mais mm-hmm. nu ñu gëm yàlla ñu xam ne man du ma wax lu dul islam maanaam man ka imam dama gis ne dama engagé diine mm-hmm. su ma taxawee ci minbar mm-hmm. su ma waxee ba jeexal nit ñi bu ñu yóbboo dañ naan imam saaxo nee na loolu dama ko war a bàyyi xel yonent bi saa sallam ne man kazzaba alayhi mutaamidan falyatabawwa maqaadu fi naar képp koo xam ne nee nga maa wax nangam te waxuma ko wala nga ne maa def defuma ko pare la dëkk safara ñun war nañu amee message yoo xam ne. Mm. ci miraas ñu koy yónnee nit ñi bu baax ñu jot ci xam ko. Mm-hmm. Euh, ki lay laaj def naan la ñun ñaar ñoo bokk sant Dramé. Mm. suñ papa sant Dramé lu tax man may jigéen. ma am dix mille mm. moom muy góor mu am vingt mille mm-hmm. laaj boobu mooy seen problème dëgg la dëgg la loolu jarul laaj lu yomb la mm-hmm. a rajulu mulzamun bi nafaqati ala zawjiha wa in kanat ganiyatan ala zawjatihi wa in kaanat ganiyatan wal mar'atu laysat bi mulzamatin ala nafaqati bi nafaqati ala zawjiha wa in kaana faqiran loolu qaayida la góor gi moom la ñu waral mu dundal soxnaam bee boo sax mu am ay milliards jigéen gi ma ne bu dencee milliards ci conte banque am bu jëkkëram xëyee ne ko dépense daf ne ko demal uti ko ku si ko def lool yàlla mhm. jox leen yeneen faveur ne leen waqar na fii buyutikunna toog leen gars yi dem marché mhm. wala tabarrañ na tabarrujal jaahiliyati luula mhm. man yàlla nag mi leen jox faveur bi maa ñëwaat ci miraas mi séddile ko nii am na ku ma ko laaj ci ndogu ne ma daal li ma jaaxal góor ñaar jigéen benn comme ni ma la ko waxee te ñun ñaar ñëpp doon wax papa ma ne ko yow an sa jëkkër mu ne mu ngi nii ma ne ko bi mu lay takk si lu mu la jox mu ne ma cinq cent mille ma loo ko jox mu ma dara ma ko ah, kon bàyyi foofu xel ci wàllu can góor a koy joxe dëgg la kon bu yàlla ñëwee ne miraas na góor jël ñaar jël benn xam na fa genn wàll ga jëm kon kat tilka a lay fa laa taqrabuha aw tilka ududu lay fa laa tahtaduha maa ngi wax bi kulli ihtiraamin ne war nañoo ormal mabadi i diin fi fekk la suñu euh, marjia ba waxoon rek fadilata daay al islami al kabir Cheikh Hamid Kiski ne inna ummata al islamia tamurru bi aswa xalatiha maanaam suñu situation bi jullit yi toll tey jullit toll musuñ cee jaar musuñ cee mm-hmm. da ngay miraas eh, mu doy waar duñ ko mën a gëm man dañ ma yónni miraas mm-hmm. mais ki ma yónni daf ne ma su ma sëriñ Cheikh Mamadou Ghali maa ngi nuyu njabootam ñu ngi seetaan mm-hmm. ne ma demal ci miraas mi waaye nag soo àggee defal la la yàlla wax ñoom buñ nangoo noonu la buñ nangoo noonu la miraas mu doy waar imam daal waa ji dafa dee bàyyi kenn ku bokkal ndey kese ñu koy tuddee axulul ummi ñoom ñaar ñoo bokk ndey amul kenn kenn kenn kenn kenn ku mbokkat ndey ak baay waaye bàyyi na fa nag ku mbokkat benn baay ki mbokkat baay malheureusement dafa tukki woon yàgg ci réew ma ki mbokkal ndey nag moom moo ko yore ci faj moo ko daan toppatoo moo ko doon suturaal ba bu mu fi jógee sax moo ko toppatoo mm. xam nga booba aada li muy jàpp dëgg la mbokk ci wàllu ndey li mm. aada di nat ci moo gën a fort waaw te gis nga dégg na alaaji loolu sa xaayida da nga ko wax naan al islaamu yub naa bi naqli laa bil aqli dëgg la dañ koy tabax ci li ñu yàlla wax mm. waaye duñ ko tabax ci ñun lu ñu wax ak li ma xalaat sama xel rafetlu waa ji bàyyi fa juróom benn fukki junne muy trois cent mille su ma àggee ki mbokk mbokkaloon ndey kese su dus la moom un sixième nga xaaji ji juróom benn xaaj mhm. benn bi la moom kam mhm. mbokkal bàyyi nga xam ne juróomi at gisantewuñ ci feebar bi ne na ñaari at la ko woo ma ne ko yaa moom deux cent cinquante mille mhm. genn góor jóg taxaw ne ma li ngeen def jaaduwu wu tegu leen ko fenn ma ne ko ah, dañ accepté sa wax ji ndax yonent bi ba mu séddalee maa nga ma ca xaybar ku ne mu jox la la nga war a am am na ku taxaw ne haza taqsimu maa qasima li wajhillah séddale bi jaarul yoon yoon bi yoo jooy ne illam aadil man yaadil mhm. sama maandul kuy maandu kon loolu dafa intibaax maanaam dafa appliqué wu mhm. ci yonent bi mhm. kon kuy njabootam boo jëlee misaasam xamal ne loolu dina appliqué wu ci yow ñu koy sóoraale bu baax kon miraas waayu bi nit ñi mokkaluñ ko xamuñu ko parce que miraas amuñ conscience amuñ conscience miraas mm-hmm. amul expérience parce que ku ne benn yoon ngay doon li gën a bari mm-hmm. moo tax dëgg la ni dana judd ba am juróom ñeent fukki at fekk doonagul baayam deeyagul yaayam deeyagul moo tax miraas mm-hmm. buriwul expérience moo tax nag day dese ci ñoom te ku ne da ngay foog li nga doon dawal wala fi nga dëkkee yaa moom islam bu ñëwee def naan déedéet un huitième soxna yéen a moom yéenay séddoo su fekkee ñeent ngeen su ngeen ko ëppee nag islam mu ne man déedéet man joxuma ñeenteel joxuma lu passé ñeenteel miraas kat lu mu dëgër dëgal fit sañu la donn loo lu ëpp juróomi jabar moom li muy donn loo rek mooy lam fa fekk lu ëpp ñeent lu ëpp ñeent sañu la donn loo juróomeelu jabar waaw walaa ta war walaa ta waru sa wala wala walaa ta waru sa fi xamisatin moom wér na kon yow miraaskat bi responsable da nga koy wax awalan tamit waayu bi bëgg naa toujours booy miraas boo àggee nga wax ak ñoom mm-hmm. parce que xamaguñ ñi ñuy def yow yaa ko xam mm-hmm. wan leen ne leen kenn ko moomoon doyut bu koy fukk di séddoo kenn du doyal ah kenn ko moomoon El Hadj mhm. imaam doyutoon mu ci daan kër kër yi suba ngoon daan yéex a gont doon xëy kon su demee ba mbooloo moom ko mhm. mbooloo moom nañ xam ne nu ko yàlla tëralee noona la mhm. mag ñi sax daa ci xaw a caxe naan alal miraas amul njëriñ si daa am na njëriñ sax gaa waaye dañ lay wane ne du alal tarikara lu fi nit bàyyi héritage ñu war ko jox ñu ko war a doon il faut julli di mokkal ne lii yàlla ko séddale noonu buñ ci toppee rek am jàmm. loolu loolu li nga wax ni am na solo euh, Oustaz euh, Mouhamadul Amine mais ñakk a euh, miraas hmm. pexe mu ne fii nii ñaa ngi ko ci def. dëgg am na pexe moo xam ne ki ñuy ki ñuy donn ci boppam moo koy def balaa moo faatu. waaw mooy bàyyi testament boo xam ne day séddale alal ji. Ah. ni mu gisee ne looloo looloo jaadu. Hmm. même bu fekkee ki muy sédd dafay donn hmm. am na ñu koy def te dafa mel ni tendance boobu moo gën a dafa mel ni am na ñoo xam ne wóolootuñ mm-hmm. seen gannaaw mm-hmm. Mm-hmm. wóoluwuñ ci lislaam mais wóoluwuñ tam adduna bi dañuy bindi wax sama miraas loolu war nga ci dellu si xool ba xam jullit bi am na droit bu ko bu mu am ci alalam di ko séddale ci lu ëpp sulus ba wala mu jëmale ko ci koo xam daa war a doon muy benn waaw bi ci des nag mooy bu génnee adduna te defuloo sax famille bi ñooy toog jàpp ne ñoo gën a xam li gën a rafet ñu ñu ñu imaam ne ko lii lañ bëgg nga defal ñu. Mm, waaw loolu ay njumti yu axta la. Mm. ay njumti yu bari yoo xam ne mu ngi dox. Mm. nit sañ naa maye ci alalam. sañ naa may may li ñuy wax may. yaa ngi dund nekk sa conscience di xëy di gont. sañ ngaa ne diw may naa ko nangam. diw may naa ko nangam waaye li ñuy wax ndénkaane nag. may nañ la koo xam ni bàyyi na fi quatre cent cinquante mille ci misaal. Mm-hmm. mu ne joxal ma El Hadji cinquante mille. joxal ma imaam cinquante mille joxal ma ahmad daam imaam cinquante mille loolu la attan la ca des bu waxee kaneen ci cent cinquante mille yi lay dugg waaye du dugg ci trois cent mil yi tarika la njaboot gee ko moom léegi nag bi mu naan joxal leen ma diw su sa boolee ku war a doon baayam ci misaal wala mu jox ca doomam ci misaal kooku wérul laa si wasiyata li waarisin la yonent bi wax moo waral coow yi ngay gis nag koo xam ne dem na ba feebar bind testament ne su ma fi jógee gannaaw wax na su ma fi jógee rek wératu ci jox ko koo xam ne dafa war a doon leen nag mun na nekk yaa ngi dund ànd ak sa xel donte feebar nga sax nga ne may naa mm. baata wahabtu mm. aw aataytu mm. aw fal yaxusi rajulu kada wa kada min nii loolu yëpp xeetu may la mën naa ñëw jël si ko ci jamono ba muy dund même sax ki ñu ko may imaam su waa ji dee te jël si ko ñàkk na kon nga xam ne ima euh, Séria bàyyi na xel miraas dëgg la dëgg la moo tax bu la nit woowee téléphone sant ab dara mi ne la kaay jël si nangam dawal de mm-hmm. si guddi gi bu ko fi yàlla jële ñàkk nga <laughs> dëgg la dëgg la <laughs> bu fi yàlla jëlee ñàkk mm-hmm. kon yàllaa ngi protéger ci war a doon mm-hmm. yow nag mi nga xam ne yaa moom sa alal bi ngay dund ànd ak sa xel lu la ci neex mayee ko waaye bind testament ne joxal ma diw nangam joxal ma diw nangam ñaari seet moo ci am Euh, siqul awal wàllu bu njëkk gi mooy ki ki mu ko destiné ki muy may mbaa du doomam mbaa du soxnaam ku war a doon mbaa du baayam mbaa du yaayam ñu ne waaw ñu ne kon nangu nañ ko bu ko sulus bi attanee bu doon neuf millions la bu la wax ci 3 millions la nekk. Mm. mën nañ leen koo diviser. Mm. ci 3 millions. Mm. mais nag su fekkee dafa wax lu ëpp loolu duñ leen ko jox. bu ci boolee koo xam ne doomam la duñ ko ko jox. loolu lu jar a xam la. te islam noonu la ko loolu am na solo séddoo bi tam bu génnee àdduna ñu daje nooy nañ. parce que man li ma li ma seetlu. mooy Sénégal fii nii bu fi nit faatoo. ki ki gën a jekku. mooy donn waaw ki gën a jekku ñi gën a néew doole dañuy perte. dañuy perte parce que li ma ci jublu mooy bu ñu nee kër gi nangam léegi d' abord. loolu nga dellu si ci. kër koo xam ne bu ñu ko évaluer objectif bu ñu gisee jëlee expert. ne leen bâtiment bii ñaata la ñaata ñaataay am. ñu ne quarante million léegi ñu jaayee ko prix miras jaayee ko 30 millions kenn ci ñuy doon ñu ne léegi na ko taaw bi jël mais comme moom ci ñu ñu ne neen la léegi léegi mu ñu jaayee ko ko 40 millions dañ ko jaayee 30 millions donc moom déjà am na 10 millions yu mu denc ba pare moom du am xaalis cash bu mu fayee ñi ci des dañ ko koy lebal dëgg li ci ëpp mooy du fay du fay non léegi loolu xars lañ koy wax waaw taxariis mm. taxariis mooy nattale ñi naan tàndatu kooku système bi ma gis ni kii doxalee ni du noonu dama mu dem ci benn miraas soxna sama sox ki ki ki war a donn ne ma yaakaar naa de kër gi vingt cinq millions la ñu wax yow loo ci xalaat ma ne ko yow kuy jaay du jënd kuy jënd du jaay dëgg la <laughs> maa ngi yow bokkuñ ci dëggul dëgg la dañuy nu ñuy tuddee expat yaakaar naa ci France mooy expert waaw mm-hmm. expat la ñuy uti mm-hmm. bu dëkk fu sori mm-hmm. koo xam ne xam na kër ñu ne ko kër gi lu muy jar mu ne trente million ñu noté. utaat beneen expert. ne kër gi lu muy jar. mu ne vingt huit vingt neuf millions. ñaar fukki millions ak juróom-ñeent ñu note indi kaneen ne lu muy jar mu ne vingt huit millions. miraaskat bi nag bu ñëwee ñetti njeg yooyu. da def lu ñu xàllul wasat. mu ñëw moyenne bi lay jël. moyenne bi lay jël. daf naan ki ne 30 naa ci tegg benn muy ñaata. 29 ki ne 8 naa ci teg benn muy 29. 29 mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. kon 29 mooy prix bi. ku ko mën a jënd ci famille bi ñu jaayee la ko boobaa kenn laya duxulu dararu fi ahadihim loolu ñu bëgg dañoo bëgg kenn du loru waaye doomi ndaw yi ñaare dangay gis dañuy loru ci miraas dëgg la ndax ñu nañ ko jaay ku mag kii nangam ak nangam problème bi li muy amaat mooy bu ko jëndoon tey dee ñu dimbalee ko ko ñoom ñàkk nañ parce que doomam yaa koy jëli mm-hmm. dañuy génn waaw moo tax miraas amul mu jaamala mm-hmm. ca digg ba rek na ko yàlla jaarale ngay jaarale li zakiri mislu hazil unsayin mm-hmm. na ko yàlla jaarale usna loolu am na solo léegi nag ñëw ci thème bi dëgg-dëgg mm. léegi ilmul miraas wala ilmul mawaris lan mooy parti lu tax mu jafe lu tax lu ko wutale yeneen xam yi ba jamono ju nekk ñi koy man ñooy gën a tuuti dëgg la ilmul miraas dafa jafe xam nga tey aaya bi ko yàlla tënk ci sotu ni saa yuusikum aaya boobu da nga koy multiplier dix huit fois ci les miraas di sogamat ah waaw dix huit fois moom ngay multiplier aayatu yuusikum miraas soog a génn mm-hmm. bu ci yonent bi bokkutoon ay dana am dëgg la ndax yàlla moom dafa seet principal yi rek mu tudd leen ci way doon nuyu góor yi mu tudd fukk mel naa ne doom bu góor sët bu góor baay maam bu góor mbokk mu góor ci wàllu ndey ak baay mbokk mu góor ci wàllu ndey rek góor ci wàllu baay rek yooyu daal la yàlla tudd yonent bi ne moo indi doomi mbokk mu góor ci wàllu ndey ak baay góor ci wàllu baay rek doomi mbokk ci wàllu ndey rek jëkkër aji goreel doomi aji goreel baay tëx doomi baay tëx topp ko ba ñaar fukk yi ñëw mm-hmm. yàlla bi mu ñëwee ci alxuraan yi ci jigéen ñi ñetti jigéen wala ñeent wala juróom la indi yonent bi ñëw indi fukki jigéen ne jabar day doon nday day doon maam mu jigéen mu jur ndey day doon maam mu jigéen mu jur baay day doon mbokk mu jigéen ci wàllu ndey ak baay day doon mbokk mu jigéen ci wàllu ndey rek day doon mbokk mu jigéen ci wàllu baay rek day doon jabar day doon muy fukk mm-hmm. sëñ Aliou Sakho nag bi mu koy tënk dem ne bi ashrati shaa aslul waarisiina wa bil xisriina qad baana fi taxdaadi ba nabula kooko yonent bi sa turando boo ko ñëwaat nag faram pànce ko mhm. li ñu doon waxtaanee sànq biñ fi jógee nag yonent bi musta am miraas ci problème mhm. yàllaa ko defal loolu mm-hmm. musta am problème mu miraas mm-hmm. yàllaa ko doon suturaal dëgg la ba ku dee rek boo ñëwee ah. mooy la atay im na tey saadin thulusay ni masalan mm-hmm. saadu bi mu gaañoo ci kanamam ba fi ñaari doomi jigéen ak kenn ko mbokka ndey ak baay yonent bi ne jox leen ñaari doomi saadu yu thulusay ni muy deux tiers bu doon quinze mille ñoo moom dix mille ñu ko cinq mille bi ku mbokkam saadu ma xam nga loolu amul problème mais mu jógee fi nag bàyyi fi Aboubacar xilaafaam jeex radiyallaahu anhu sunu Euh, xalifa bi baax bi muy. Euh, Sidna Omar Sidna Omar mu ñëw ci xilaasam problème am. te yonent bi nekku ci. Omar benn waaye ñëw ne ko mbir xaw na de pour xam-xam bi ni mu mm-hmm. jafee rek. dëgg nga xam ne moo metti day dal si. miraas day ñëw sa kaw alxaaj da ngay jaxasoo alamin mm-hmm. te lii nu mm-hmm. ma koy lijjanti. dëgg la waaye ñëw ci Omar ne ko waa man sama man sama sama sama jabar moo gaañu. ba fi man man na fi bàyyi may jëkkëram. ak ñaari mbokk yu mbokkat nday rek. ak seen yaay ak man mi ak ku mbokkat nday ak Omar ni bopp bi séddale ko mu wéle ci juróom benn tomb mm-hmm. su fekkee jëkkër doom amut nisif lay am mm-hmm. mooy moitié mm-hmm. ndey su fekkee mbokk dafa li mu sulus lay am mooy un sixième mbokk mu jigéen eh, ñaari mbokk yi ci wàllu ndey bu ñu limoo sulus la ñuy doon xam nga li Sénégalais yi Sénégalais yi ko wax da naan miraas kay góor ñaar jigéen benn la loolu mooy ABC ci njàng ñëpp ko man dëgg la mooy ABC mooy abajada am na ay ruq yoo xam ni ki koy def sax day toogaat seetantal dëgg la masala mi ci juróom benn tomb jëkkër jël nisifam mooy ñett ci juróom benn mm. mu des ñaata ñett mu des mbokk yi ci wàllu ndey jël seen ñaar muy suddus mm. mbokk euh, muy muy sulus mm. yaay ñëw jël sudus ba mu jeex Omar faslante loxo yi mm-hmm. ne ah lii la qaayida bi sàkko de lam a lam aalam man qaddamahu alkitaabu fa uqaddimahu mm-hmm. wala man axarahu fa uaxiruhu mm-hmm. walakin raaytu rayan in sawaban fa min allah wa in yakun xataan fa min min alcheytan xoolu ma démocratique boobu noonu modestie bi modestie bi mhm. mu ne li ma xalaat nañ dajee ñu xalaat ci mhm. ndax su ma joxee ñii seen aq mhm. mbokk mu góor mi ci wàllu ndey ak baay du am dara kooku moo sax revendiqué ne ko Omar lu xew waaw lu xew kaana abuna ximaaran wala xajaran kaana abuna abuna ximaaran aw xajaran aw mulqan fil yemmi ndax sama papa dafa nekkoon mbaam wala mu nekkoon benn xeer bu ñu sànni ci doj ba alaysatil ummu tajmauna ya omar wax dëgg yàlla xoolal dawla islamiya boobu rek ak qadiya miraasiya bi nga xam waqaat fi tilka al fatra wa kaana omar xalifatan lil muslimin masa masa faalul omar omar dafa ne naa def lu ñuy tuddee réunion d'urgence c'est con ça qu'on appelle président consulter borom xam-xam yi consulter tous les ulémas du monde mhm. oo ña ca abbas yii ne mhm. oo ña ca madinatu munawara mhm. oo ñëpp ne leen wax li ma wax nii xaw ma ko alquran njëkkee xoolal problème bi bi xew ci diine ji mm-hmm. ndax yonent bi bàyyi ko fi dëgg la lu ngeen ci xalaat mm-hmm. abbas fuhulul ulama mm-hmm. moo taxaw ne ko omar nañ def naqs awlu awlu awlu ci miraas mooy dañ ko séddale woon juróom benni xaaj ndax léegi duñ ko def juróom-ñaari xaaj wala ñu jël mbokk ma ci wàllu ndey dugal ko ci biir duñu éwlu sax dañu jël mbokk ma ci wàllu ndey dugal ko ci sulus ba mu seddoo ci sa doomu ndey la tam sa doomu ndey la Omar na loolu d'accord naa ko. Mm. mu ne ko Abbas luy sa argument. xam nga Omar dafa garaaw de doo ko mu jël de mu ne ko damaa gis ne ku deewoon ba fi juróom benn junni amel juróom ñaari nit. bor mm. dañ koy diviser par sept ku ne ñu masal la. dëgg kon damaa bëgg rek waa ji dugg. dëgg Omar na ko dugg si. dëgg la <laughs> loolu lu am solo la euh, oustaz Mouhamed Lamine mbokk yi yéen ñu topp émission bi masala bi masala bu bu doy waar la mm. euh, xam nga imaam li nga wax nii mooy miraas mi dafa am ñoo xam ne dañuy am cër dañuy ñëw rek ñu jox leen ko ñu dem seen yoon am ñoo xam ne dañuy toog xaar ba ñuy am cër jël ba pare la fa des ñu jël ko léegi jim bokkal ndey ak ci ñooñu la bokk ki bokkal ndey baay su ma comprendre li nga wax dafa bokk ci ñi nga xam ne ki nga xam ne dafa waroon toog ba ñi am cër jël seen li fa des mu jël ko léegi nag bi ñu am cër jëlee seen cër jeex mu jeex fa léegi ñu bu ko bàyyi mu ne non parce que moom te moom mm-hmm. gën a fort mm-hmm. gën a fort a tax ñu ne ko xaaral lu des yàqu moom ba pare mu mujj bëgg a bëgg a ñàkk a doon dëgg la ah du demee noonu parce que léegi man mm. man comme am sama baay xamatuma ko mm. xamatuma kuy sama baay mais ñii man ñoo bokk ndey dëgg la ah, la ah, lu tax ñu doon te doon oh, loolu lu am am solo te masal yu bëri yooyu dafa bëri ci ci mm. Mouhamed Lamine fa waaw imaam ah, waxtaan bi waxtaan bi tey waxtaan bi waxtaan wi c'est-à-dire que lii mooy wane rek ne moom war naa wax ci lii. incha mais imam léegi xam nga théorie bi. Hmm. lii moom techniciens yi ñoo ko mën a xam. c'est mais fi ñu toll imam hmm. man ñàkk miraas gi ci réew mi. Hmm. mujj gi nit ki day faatu bàyyi alal alal ji kenn du ko jëriñoo. day mujj yàqu dëgg la dëgg la day mujj yàqu. nit ñaa ngi fi di kër yu ñu war a doon suuf suñu war a donn alal ju ñu war a doon di ko xëccoo di yéexantal di yéexantal ba ñoom ñëpp. ñu faatu compliqué sax ñoom ñëpp ñu faatu. waaw waaw alal ji dem ci yeneen lox mm. waaw loolu nag bàkkaar la boo xam ne. ñun jullit yëpp ci la tegu. Mm-hmm. waaw parce que ñu taxawee ilmu miraas dafay taxawee sangu sangu niw waaw su fekkee tey nit jógee na fi sanguñu ko ba mu yàqu ci mbedd mi bàkkaar ba ala jamil muslimin wa ala atiq jamil muslimin wa ala awatiq jamil muslimin waaw dafay nekk suñu doq hakada loolu <coughs> lay nekkee suñu doq mm-hmm. en tant que jullit mm-hmm. ñàkk miraas gi xew mm-hmm. maanaam ñàkk miraas dafa danger maanaam yonent yi yonent bi ko ragaloon ba benn bi sax danay wax ni maa ngi koy wax ci suma commencement taallamul faraida wa allimuha naas dafa mel ni dafa ne ngel comme ni nga ko waxee mhm. sa yàlla mhm. ngel la maa ngi leen di ñaan ngeen jàng miraas te jàngale ko te appliqué ko mhm. parce que alal almaalu shaqiqu ruux alal mooy mooy ruuxum ñooy frère am dëgg la ni ruuxu ñoŋee noonu lañu war a ñoŋalee alal comme ni ñuy imaam bi imaam ñun imaam yi tamit dañ ci war a taxaw buñ jullee nii ba pare dénk leen ne leen na ngeen ci taxaw ci lii mu fi bàyyi loolu suñu responsabilité de El Hadj dañ ci war a taxaw comme ni ñu leen waxee nag xam nga ñi am na ñoo ne ñaan jàngaleen ko kaamil loolu leen digal wala nangeen ànd waaye loolu mooy aada li sharia moom mooy imaam bu ne boo jullee niw ba nopp ba dem ci kër ga waxtaan war ngeen wax ne li góor gi moomoon wala li soxna si moomoon wala li waa ji moomoon na ngeen ko séddale parce que bàyyi gi xutuural gis nga kër yooyu ngay wax imaam ñu ñàkk ko miraas ay bakkaar la yoo xam ni mu ngi nekk seen kaw ñoom ña ko moom ñu ko deful wa illaa tafalu takun fitnatun wa fasaadun kabirun yàllaa ko wax mu ne su ngeen ko deful rek fitna dina am te yàq lay nekk te islam bëggul yàq dëgg allahu inna laa laa yuhibbul mufsidin mm. kon il faut Sénégal yi ak addina bi seen xel gën a ñëwaat ci miraas te ñu bàyyi nu ñu tuddee xanuunu ahwalu saxsi mm. xanuunu ahwalu saxsi bi ñu def ci réewu magharib yi nga xam ne du ñu miraas góor ñaar jigéen benn wala duñ miraas yooyu foo la code de la famille code la famille foo la ci wàllu miraas déedéet miraas yàlla yuusikum foofu lay dellu dénk naa leen ko bu ngeen koy rob rek na ngeen dem toppatoo alalam am na koo xam ne nag mënees su ko gaaw miraas daf doon yëngatu ci wàllu commerce mën na ko gaaw miraas am na ay bor même bu dee tamit am na loo xam ne Sénégal ñu ngi ko def aada ñu naan oo oh, diw ne ko ah, sa papa gaañu na wala seen nijaay gaañu na nag wa yow war ak loolu foo la ki dee moo war a dëj boppam maa la wax loolu oto bi koy jëlee fii di ko yóbbu yoof wala Pikine ga ñuy rob yi wala Saalum fu mën a doon ci alali niw bi lañ koy génne yuxraju min tarikatil mayti xamsatu uquqin juróomi àq lañ ciy jël bokk na ci raja samaka nañ ko daan tënkee ci daara ji bu bu leble woon bor ñu fay ko mm-hmm. bu amoon jàmm bu def accident ñu bindal ko ordonnance mu fay ko mm-hmm. ba pare mu unatul taj isi mm-hmm. feere gi ñu ko feere waajalam sàngaay ga ci alalam lañ koy jënd su fekkee dañuy togg ay lekk ci lañ koy def su ñu yóbbu ay oto ci lañ koy def gas pax mi sax ci alal ji lay génn bala ñoo miraas waaye dangay ñëw rek ñu tajale alal ji confisqué ko di woote naan diw na def nanga bu xata un am boo mm, xam ne dafa daj vraiment mm, waaw xata la mm. loolu njuumte la loolu ci sensibiliser loolu am na solo mais même ci wàllu ñi euh, nga xam ne défaillance yi parce que il faut ñu won jullit yi li leen mën a fekk ci ñàkk a miraas ku génn àdduna léegi Euh, nit dafay génn àdduna ñu bañ ko miraas am benn groupe wala kenn ku accaparé alal ji mm. di ci jëfandiku ñi ci des rus rus cee wax mm. te am te ak am am ak ci noonu naan man duma ci wax léegi tey ñu def damaa fuqale wala yooyu mm. est-ce que kooku loolu dana ko tax a mucc ñaari ñaari la ña noppi bu ñu noppi as-saakitu anil xaq seytaanul ixra axras ka ca noppi te muy àqam te mu war koo wax yonent bi ne na seytaane bu tëx la la taamurunna bil maaruf wala tanawunna anil munkar wa illa la yusallitanna allahu aleykum shirarakum fa yadu xiyaarukum wala yustajaabu lahum ñu ngi ci loolu nañ ko bàyyi nañuy digle lu baax def ci lañ ci war a def ka nga xam ne nag moo ko jël di koy accaparé su ma ko gisee dama naan ko yaa ngi ci erreur inna alladina yakuluna amwala yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nar yaslawna sayar yan mu ci yàlla musa mm. alali jirim bal jege saalum loolu lañ daan wax bal ko jege bal ka laal mm. bal ka leb bal ka xam teg ko fóole mm. waaw saalum saalum yaa ngi may dégg ngir ragal ko kon El Hadj imam alali jirim yooyu bu ko kenn jege nañu sensibiliser imam yi borom kàddu yi li ñuy tuddee saaniul xaraar mm-hmm. borom ndigal yi mm-hmm. nañuy wax nit ñi suñ fi jógee ne kii lim fi bàyyi nañ ko séddale nañ leen ci sensibiliser gis nga ni ñuy dénkaane imaam sol na ay ay ima yoo xam ne mm-hmm. suñu war a jullee ni wax xaqiqatan am na fu ñuy roy yonent ma kontaan ci mooy dañ laaj ndax moom bàyyi na fi bor ñu ne waaw ñu ne ku koy gàddu kenn maa ko représenté loolu rafet la azakaay muuram koor bii ñu jublu si tey ku deewoon fekk sax na ci yow ba dañ laa miraas war nañ koo lijjanti yooyu yu baax la waaye nag gannaaw loolu yow imaam yow kilifa gi dénkaaneel njabootam ne leen seen bàyyi leen fi bàyyi nañ ko séddale ci nam waree ñu jox ku ne lam moom ku ne nag noo def yaa xam waaye nag suñ ko bàyyee noonu alal ja yàqu ma ne la bàkkaar ba mboolem jullit ñu dëkkee koñ ba te seetaan ko mu ngi suñ kaw mu ngi suñ kaw léegi miraas est-ce que am na ay charte bu baax yoo xam ne foog mu na sart dañuy tooñee suñ mbokki Dramé Dramé yi mm. aw nag loo ko bëgg-bëgg nag mm. na dee mm. dëgg la <laughs> waaw ah, bala ngaa lekk ci yàpp ah nañ ko rendi uh-huh. am na mën naa la indil qadiya euh, koo xam ni dafa nekk un commun ñetti at mm-hmm. ci Palestine. mooy koo xam ne deewul dundut. deewul dundut. Mm-hmm. c'est-à-dire. nekk euh, rey bu ba kenn loolu xam nga. miraaskat yi dafa nekkoon seen problème. ñu ne nañ ci waxtaan. ñu ne ah nañ ko miraas mm. parce que alal jaa ngi commencé yàqu ñu ne déedéet bi charte tahqiqi mawtin ma taqaddumihi wa ilmi qurbin ala kayfin bi asala mm-hmm. foog si mu wër nañu deena mm-hmm. foog ki ñuy donn mu wër na deena mu wër na deena moo tax Barça yi ñuy miraas xale yi doon dem Barça ñu leen di miraas erreur la de dëgg la dëgg il faut mu am ay taxqiqaat ay mm. enquêtes yu ñu def mm. sur le terrain ba pare suñ ci xamul dara dañuy xaar bu dundam am juróom fukki at ak juróom ñu sa koo miraas ñu ne bi mu ganee bi mu ganee àddina ak léegi am na soixante-quinze ans mhm. juróom-ñaar fukki at juróom mhm. xalil sax nee na juróom-ñetti fukki at mhm. lay am ñu soog koo miraas dan amuñ ci information waaye bul wax ne c'est-à-dire ku koo xam ne wóoruñu ne deena wóoruñu ne deena kon kenn du ko miraas kon bokk na ci chartab miraas mu wóor ne deena ba ca tegu tamit mooy lu ñuy tuddee ki war a doon naka koy jiitu ki muy doon taqaddumul mawruus alal waaris mhm. loolu sart la ci foog si foog si ñoom ñaar yëpp a génn àdduna waaw foog mu ñu ne kii moo njëkk a moo tax ma joxoon ifta ci benn rajo ci batu la joolaa bi mhm. ne leen baay ak yaay ji ci biir kenn du doonu sa morom mhm. ndax am na ku njëkk a dee mais ñun leeruñu c'est trop fort gannaaw am ñoom ñaar am na ku njëkk a dee dëgg la allahu yatawalla bawatin wa nahnu natawalla azawahir kon atte bi ma ci joxoon mooy ñi nga xam ne dañoo dee ci batu la joolaa ci misaal jëkkër a jabar nekkoon ca te seq ndono te seq ndono kenn du doon falaa tawaru sa doon nañ du am parce que miraas du taxaw ci majhul miraas du taxaw ci loo xam ne leerut mm. il faut charte la mu leer ne ñoo deyandoo mm. aw tata hat min kër yi di maa màbb ci famille mm. ñu ñu def isla maanaam ñu génnee leen waaw ñu ne dee nañ ñoom ñëpp doon nañ tuddee am. cest benn kër bu daanu ci ñi ko dëkke woon. waaw ñëpp faatu. ñëpp faatu. ñooñu tam duñ doonante ndax xamuloo kuñ dëkk faatu. allahuma mooy Euh, bi nga xamee ni daanu gi am na am na ku ñu jël yóbbu ko hôpital ci misaal. mu door mm-hmm. ñu ne dund na fa ñetti waxtu misaal door a dee. donte lekkul naanu sax waaye yëg na ni kii mu ngi doon nooy mm-hmm. kooku waaris la. Mm-hmm. kooku day doon cekkee. kon dañoo bëgg yow technicien bi séddale mu leer la ne ki ki ngay miraas dee na. su ah. deewul kon boobaa doo ko def comme charte la. beneen charte tamit mu wóor la itam ne kii donn lu boni boni. mujjee na dund ki ki ki muy donn même bu dee. deux minutes bu dee deux minutes dund na ko kon kooku da koy doon da nga koy jox euh, beneen ba ci tegu mooy euh, war naa nekk charte la charte la ci miraas charte boo xam ne amul sikki sàkka mooy ci jullit maanaam ngeen bokk diine da ngeen di bokk diine de taxaaluful adiyaan du ñu donnante la tawaarusa bayna muslimin wa kafirin wala yahudin wa nasrani yéeféer ak jullit du ñu donnante loolu ñu xam ko mën nañ leen a takk nag wax naa ko bi may nekk Kaolack sama benn dëkkandoor catholique la ma ne ko ah ngaa topp sa jëkkër ji ci diineem mun a ah ma ne ko su dee doo ko doon mun ne ma nga ne ma ne ko déedéet mu ne lu tax lool ma ne ko ñaar ñu bokkul diinee duñ donn mm-hmm. kon sart la sart mm-hmm. la ci donn ngeen bokk diine mm-hmm. su diine yi uutee donn du am beneen sart bu ñu war a bàyyi xel lool lool ci wàllu diine mooy sart bi ñuy tuddee pas-pasab sëy bu wér su fekkee pas-pasu sëy bi wérul te ñëpp d'accord ne wérul comme juróomeelu soxna bi ma wax wala lu mel ni que mahram sa rakk bu jigéen sa sœur nga takk ko wala sa jarbaat wala sa jarbaat parce que ñu bëri tendance bi am temps yi parce que question yu bëri dañ ma koy laaj mhm. ci ku jàpp koo xam ne jarbaatam la bëggoon takkal mhm. koo xam ne moo baay yaayi ndaw si mhm. ñoo bokk baay wala ñu bokk ndey dëgg la loolu Sénégal yi ñu ngi ci jëm léegi bu méttee métti dëgg la kon loolu doonante du fa am de am na sëy boo xam ne dañoo wuute wér na wala wérul lu ñu tuddee nikawul muhrimi ki armal aj bi nga nekkee màkka nga yónnee ñu takkal la te fekk yaa ngi laxasu dafa am ñu ne wér na am na ñu ne wéru sëy boobu nag mazhabu Malik ak suñu sëñ si Xaaj Malik moom daf ne wérul ilaa la siqi xalaalan fi siqi addatin boo demee ci xilaas mu ne ñu bëgg sukkandikoo ci taarix ne yonent bi takk na jabar woo yuxrimu mu ne wérul si silqi adda ba aj ja jeexee ba pare ba mu xaram dugg ci la mm-hmm. takk soxna may munatu boobu kon mënu lañ ci sukkandiku du dalil mm-hmm. kon nag sëy boobu nga xam ne am na ulama yu ñu ne wér na ñu ne wérul mm-hmm. sëy boobu noonu su fekkee ne tas maanaam su fekkee yëg nañ ko tas tasaguñ ko di ci négocier ba kenn dee doon nante dina am seen diggante boobu charte boobu xaw na aw beneen ba mooy am na ku ñu tuddee kuñ fase tey sénégalais boo ne diw fase nañ ko rek moom moom jabar jabar la ba mm-hmm. léegi mm-hmm. Eh, Cheikh al Imam ko amoon ñeenti soxna fase kenn mm-hmm. mu nekk ci ñetti yi jeexagul mënu goo takk keneen dëgg la dëgg la dëgg la mënu goo takk beneen jabar yaa ngi jabar ba léegi il faut idde bi jeex biir idde ja nag su sa jëkkër ja dee soxna si day doon ndax jabar la tey boo ko xoon fii ñu ne loolu mënta nekk ko koy fase nañ ko waaye mu wax la lu gën a yéemu koo xam ne dañ koo fase ci feebar lu ñuy tuddee ixraajul waaris jëkkër mer rek fase ko wérut moo feebar ba wér nag am na lu ñu koy seetee su fekkoon ne ab journaliste la dem na liggéey su fekkee ab commerçant la dem na ci bitig ba su fekkee ab jaay su fekkee ab ustaas la dem na jàngale loolu la jàppee wér waaye su fekkee mu ci marat boobu juróomi at ndaw sa day doon lu mu yàgg-yàgg moo wax lu gën a yéeme donte sëy yaan na ci beneen jëkkër maa la wax loolu moo tax wa warisat imraatun zawja aswaajan jigéen léeg mu doon ay jëkkër yu baree baree bare mm. ndax kii da ko fase ci feebar mm. ñu condamné ko ne ko ixraajul waaris nga def mm-hmm. dafa am ko waroon doon nu nga génne ko mm-hmm. te wéroo mm-hmm. mu dem sëyi kooku defaat ko noona mu dem sëyiwaat kooko defaat ko noonu ba muy ñetti jëkkër ci juróom-ñaari at ñëpp dee ñetti sumun ndaw sa dana ko doon loolu mhm. waayu diini bi daf ci waral jegeel eh, nit ñi ñu yëg ko mhm. imaam yi seen xutba yi ñu ciy dugal miraas mhm. ndax ñu yëg ne nii lañ koy war a defee kon charte yi charte yu wér la eh, maa ngi wax lu gën a yéeme mooy jigéen dañ koo fase de mu dem këram ba ñaari weer jëkkëram de day téen yi muuru ni <laughs> te fekk fase nañ ko waaye iddaam jeexagul kooku nag na mu war a téngee noonu la war a donnee kon daa chartay miraas bokk na ci kañuy donn dee ki koy donn mujj ko fi ñu takk ko ci sëy bu wér boo mhm. xam ne sëy bu wér la mhm. ak it doom muy doom joo xam ne doom ju wér la mhm. su ma ne doom ju wér mooy doom joo xam ne juddul ci sëy loola sariya du ko dox ndono bari na coow am na ñu koy taawil am na ñuy def nii am na ñuy def nii ñu ne yow miraaskat bi soo àggee laajteel lool da ngay woo bàjjen yi ne ah góor gi ñuy miraas nag ndax taaw bi taaw la <laughs> da ngay laajte de sañ bi miraas moom dafa doy wax dëgg ndax taaw bi taaw la da koy laaj bu ne la ah moom kat nangam ak nangam nangam nangam kamara nangam. Mhm. ah boobaa nag boo ko jox cër. Mhm. parce que sariya joxu la ko. Mhm. am na lu ñuy tuddee liaan te bari suñu jamono. ku nekk bitim réew rek. yëg ne soxnaam mel na nii rek mu ñëw ne ko ëmbaluma la. daay ñu daal di coow ca ñu waatoo ko tas sëy ba doom jooju moom du doon. du doon ki ne mooy baayam waaye dina doonu ndeyam. su fekkee nag ñaari doom la indiwaale. ñoom ñaar bu ñuy donnante ku ne yaa ngi donnee sa morom ñoo bokk ndey ak baay. ndax pas-pasab sëy ba ca jaar. dëgg la dëgg la tey demoon nag. Euh, ngeen daal ma ci waxin bi njaalo ji ëmb am ñaari doom ñu juddu ñoom ñaar ku ci na sa morom yaa ngi koy doon ne ñoo bokk ndey kese parce que joxuñ leen bàyyi kon miraas bëri na ay sew sew yoo xam ne société bi war nañ cee jot bu baax a baax xam ne lii la ko yàlla dina leen waaw imaam xam nga professeur Mouhamed Lamine tey lii muy wax dafa am solo mm-hmm. waaye société sénégalaise bi aussi dañuy am problème mm-hmm. mooy xale yi judduwul ci sëy mm-hmm. loolu problème dëgg la dëgg la waaw am na bloc waaw am na blocage yu mu créé mm-hmm. te bu judduwul ci sëy ci diine comme ni nga waxee mais ñeneen ñi dañuy lànk dañ naan doom la doom la mm-hmm. bu bu naree buñ ko naree xaj nañ dem tribunal mm-hmm. tribunal nag du miraas waaw waaw ñoom noonu la ñuy def léegi nag léegi léegi foofu euh, est-ce que ci borom xam-xam yi ubbiwu ñu benn buntu yombal ba nga xam ne kii judduwul ci sëy ñu am luñ ko mën a jox ala fikra euh, ko ci miraas bi am na lu ñuy tuddee ida xadar al qismat ulul qurba loolu mën na nekk ulul qurba qurba léegi xam nga doom ji ki ñuy wax papam du papam waaye yaayam moom yaayam la foofa rek laa mën a xalaat te lañ koy jox tuddul tuddul tuddul ndono de maanaam euh, sharia dafay composé wu ci ay mustalax baat booba moom du ko du ko caaxaane ma ci joxee benn exemple ci njaay te boo ñëwee ci bitig bi ne ko lebal ma mu yëkkati jox la nga ne ko ba weer dee ak nga ñëwaat jox ko jëlaat beneen portable ne ko jaay ma ko ba weer dee xam nga lépp bor la tudd mm-hmm. waaye sharia am na ci ñaari gisin yu bokkul mm-hmm. moo tax su fekkee dañoo jël dara ci alal mm-hmm. may ko ko way tudd ndono may comme ña ñëpp ca la bokk ci kër ga comme nag nijaay nañ joxe nijaay te warta doon joxe ko bàjjan te warta doon kooku may lay tudd ko ak ndono li may du nangu daal ñu saxal ne kooku dafa war a doon loolu bu ñu ko defee rek dana yombal yu baree baree baree baree mais amul mazahib yu wax loolu waa jànguma leen wax dëgg yàlla li mazhabi ka maliki li ma jàng rek na laa na ma dégg ibadiye ak imamiye yu nekk ci jafar sidiq ca iraq ñoom dañ naan al la yàlla wax <laughs> la yor bi moo du doon waaye ndëmuñ ci ibnu hmm. ma jàng moom bi ma xam euh, euh, ku mel ni docteur Youssouf hmm. euh, def na ci fatwa dëgg la wane ne su baayam nangoo ne doom la hmm. da koy da koy donn i'tiraaf waaw na lu fu ko teg mooy mu ne ñi ko aaye ci ndonam yëpp hmm. ñi ngi ko sukkandiku ci wax ji yonti wax ne hmm. alwaladu lil firaash mu ne comme fii firaash amu fi daal amu fi su ko su ko ne sama doom la dañ koy bàyyi mu doon loolu moom fatwa la gis naa loolu mu bind ko voilà c'est ça donc euh, comme daara ji dañ ci ay information fii moom ñu ñi jàng mazhab maliki bi waaw ah, mazhab maliki moom laa yarusu ibnu zina moom loolu la bind ah, ah. donc mu joo xam ne daal laysa lil firas kooku Malik nee ne kooku moom du doon waaw <laughs> léegi ban euh, loo ma ciy tegal parce que wax waxtu wi daal mu ngi waaw li ma la ciy tegal rek mooy euh, ñu taxaw ci rek ci niñ ko waxee mm. ci lépp loo xam ne rek dafay defar maanaam société bi te mën a jaare ci miraas moo xam ne buñ ko defee ku nekk rek dañ ci gis seen bopp ma bëgg indi tuuti rek yi nga xam ne day tere nit du donn wax naa charte bi waral donn koo xam ne dafa xooloon alali baayam imaam xemem ko ñaan ko ci góor gi ko du ma la may mu jël fetal ne ko tëj bàyyi ja dee du donn laa yarisu al di al aamidu ki nga xam ne dafa jalgati tay rey mm-hmm. tasabuban mm-hmm. aw mubasharatan mm-hmm. mbaa mu seet benn bandi sax jox ko bal ne ko sama papa dafa am alal te damaa yàkkamtee jot alal ji mënatumaa xaar yàlla may xaaraanu kon su boobaa reyal ma ko su ko papaam reyee su reyee papaam du doon kooku il faut ñu xam beneen ba ca tegu mooy am na koo xam ne lu ñuy tuddee bal perdue xattulul xaatilul muxti iw alxaatilul al muxti iw mm-hmm. al muxti masalan mm-hmm. koo xam ne dafa bàyyi ma ngi yéeg ci garab mm-hmm. wala doomam ma yéeg ci garab ku mu war a doon moom mu seen benn cokeer di koy fetal bal ba mer mooy daal papaam wala mu dal ku mu war a doon kooku dana donn ca alal ja dana doon ca alal ji waaye du doon ca diye ja mm. maanaam daf koy fay daf koy daf koy dédommagé waaye du ca doon mm. keneen am na loo xam ne war nañ ci wax te sage-femme yi dimbale ñu ci nit te tey ko da ngay joxe diye da joxe diye waaw ku rey nit te tey loo ko da joxe diye mm. diye jooja nag donte sa papa la sa mag la koo war a doon doo ko doon waaye ca alal ji da ca doon mm-hmm. beneen bi sage-femme yi ñoo ko mën a seede kii juddu na ustaas daam imaam foofu am solo la mm-hmm. ndax juddoo na bakkan mm-hmm. waaw yi ñuy wax ni su fekkee xale bi jooy na dañ naan kon ànd ak bakkan loolu mm. lañ koy xamee mm. koo xam ne ànd naag bakkan jooy na mm. waaye su fekkee ne bi mu juddoo dafa tuur ndox kese wala am lu génn ci bakkan yi mais jooyul nàmp fi kooku la ñuy tuddee nag le euh, réeru koo xam ne dañ naan tàkku yëkkatikul yëkkatikul kàddu kooku moom du doon loolu nag soxna yi ñi nga xam ne ñoom seen domaine la ñoo mën a joxe ndax dund na wala dund parce que alal dafa doy waat te dama ko dund mooy koo xam ne dafa gaañu soxnaa ma ngi ëmboon bañ demee soxna si am doom fa fa ishtaharatul ghumuud lënt xew lu tax lënt xew mooy waaye ñii ne bi ne xale bi de yëngatuwul yëngal naa ko waaye yëngatuwul yaay ji ne moom dégg na mu jooy foofaa nag jigéen mën naa seede ci alal waaye nan il faut mu waat boole ko ay ñaari jigéen ñu seedeel ko xale bi soog a doon waaye ki nga xam ne daal mu ngi ci hôpital ñi koy mm. reewle mm. sas-femme bi moo mën a joxe ak ñi ko doon reewle moo ci ëpp kàddu moo ci ëpp kàddu mm. su fekkee ne ne jooy na fi nàmp na fi nelaw na fi mm. kon dañ naan doom la mm. donte dee nag dañ koy jox cëram ci mm. ki ko jiitu woon waaye su fekkee def na bu juddu rek waaye jooyul nàmpul donte tuur na ndox sax dañuy wax ni doolee njuréel ji moo tax ndox moomu génn sabeen boobu mu tuur ngeen baal ma ci waxin dëgg la waaye kooku du doon loolu am na solo eh, imam ah. léegi eh, li nga wax ni am na solo te yaa ngi joxe ay technique yu xóot a am na ay am na ci yoo xam ne mën nañ ko tudd sax ay exception ndax eh, du am duy am toujours mais problème bi njëkk a am bi ñu am fii Sénégal mooy loo xam ne day am toujours. ba pare ñu jalgati. mbirum séddale kër ay néeg. noo ko gisee. waaw séddale boobu imaam mooy problème bi nag. néeg yi man de su ma doon sama xalaat dama naan nañ ko jaay. danaa ñi ko bokk kenn mënut a am benn néeg. xam nga séddale néeg bi buñ ko defee am na koo xam ne daf ciy liggéey soliste la. nee na ma dañ koy séddale ba ca kanam kooka gaaña doom ja jàng luwaa ñëw na sama néeg yaay bi. ni ñu ko séddalee ma ci. jël kayit yi yóbbu ko bi ci li ma fekkee comme ñu ngi doon def pratique bi parce que ñun ku ñu doon jàngal miraas ñu oustaz Mbaye Ndiaye maa ngi koy nuyu ca cinquante moom lañu ñu sëñ Aliou booletoon gannaaw bu mu taalifee téere bi sëñ Aliou dafa daan ànd ak ñun dem ca àll ba fa mu miraase ngay xool moom toujours dafay seet bu dee kër gi ñëpp mun nañoo am néeg moom mu defee ko noonu jigéen bu ñu ko joxee néeg bu dee néeg bi jar trois cent million trois cent mille ci misaal te néegi góor de trois cent mille dana am lu mu teggiyaat parce que cëram àttanu ko mhm. ci misaal mhm. Mhm. waaye loolu dafa daan wax toujours ne li gënoon mooy comme ñu ñëpp mënuñ am néeg ñu jaay kër gi xam nga problème ba fu muy feeñee bu ñu ba kër ga màbb c'est ça bu ñu ba kër ga màbb ku koy tabaxaat nan la ñuy def ba tabaxaat ko même entretien kër gi heure bi kër bi heure bi dëkk nii sax entretien kër bi day poser problème entretien kër bi day poser ah. problème parce que kii def naan mën naa génne vingt mille pour ñu jënd peinture kii ne mën naa def mais ñu gën a karo kene aw ma te kër gi yëpp lañ koy def moo tax yu ci bari li ci gën mooy ku ne daal ñu jaay ko len nag sariya nangu na ko mm-hmm. mooy muwaafaqa mm-hmm. lañ d'accord ñoom mm-hmm. yow miraaskat boo ñëwee ne nu ngeen d'accord ci kër gi ñu ne ñoom waxtaan nañ seen biir nekk ay mukalaf su fekkee am na ci koo xam ne baalixagut d'accord googu dëgërul de mooy ñoom ñëpp baalix nañ ñu ne d'accord nañ kër gi ku ne ñu jaay na sa néeg bi nga nekk bu yàqoo nag ñun ñëpp la yàqu bu baaxee ñun ñëpp la baaxal ku ne yi nag bu ñuy entretien nangam ngay def mhm. dañu awul awul kullu shatin aqiru nuurun mhm. awalu kullu shartin axiruhu nuurun su fekkee noonu lañ ko chartaalee ñu dugg ci néegi defee ko noonu charia dina lañ moo sax lu gën a yéeme mooy famille bi ñoo bokk ndey ak baay ñoom ñëpp seen papa ñu ne ñoom d'accord nañ adamul miraas ñàkk miraas charia fekk lañ ci na lool waaw nga xam ne ñoom ñëpp ñoo d'accord ñoom waaye nag ñoo bokk ndey ak baay lañ ñu nag ak chiqa ne d'accord nañ ñàkk miraas boobaa charia dina leen fekk ci loolu mm-hmm. ne leen man ngeen a ñàkk miraas mm-hmm. la ko waral mu ne parce que seen àq la àq jooju nag comme ñoom dañoo wax ni ñoo ko bokk mën nañ koo nag kon mën naa nekk loolu mën naa nekk loolu mën naa nekk wala bi an farada mustaxriqun amul miraas hmm. kenn benn doom bu góor la bàyyi hmm. kese benn doom bu góor kese kese la bàyyi hmm. amul miraas du jëru imaam di dem d'accord mais li ma li ma fi problème bi kay mooy ñi bokk dee ak bàyyi d'accord ne ñun. waaw waaw adamul miraas. Hmm. waaw waaw saxiix war na sax yàlla bind na ko ci téere bi. Hmm. gannaaw mu ngi ko bés ko ci mazahib yëpp. Hmm. ñu fekk ne nangu nañ ñi bokk ndey ak baay bokk alal ji nga d'accord nañ boo demee ci Saoudia. sharikatu naa nga wa ajin yooyu yëpp seen tarika baay la. ñoom ñoo cee waxtaan majeur. bu ne xam la la ca wax ñu soppi ko compagnie di ciy liggéey di séddoo bénéfice ak action yu amoon ci yëpp charia fekk na leen ci parce que ah, mais loolu kay kon bu fekkee lu tax ñu yemale ko ci ñuy bokk ndey ak baay rek suñ dee ay doomu baay sax te d'accord ci ko te d'accord xataa man maa indi boobu rek maa ko ah. waxee noonu waaye même suñ fekkee ñoo bokk benn baay wala baay rek lañ bokk waaye ñoom daal baalix nañ majeur nañ xam nañ li yàlla wax ci alal xam nañ li yàlla wax ci nàngam comme boobaa charia nangu na ñu bàyyi leen ci noonu ci boo demee ci fi naan ñu jili bi maalin wa miqdaarin wa waarisihi wa li'tiyaajin yura lil qism mustamila foofu wax na ca saraba ne suñ d'accord adamul miraas te ñoom ñoo bokk pour def ko compagnie di liggéey sharia fekk leen ndax seen xàq la <laughs> ah, euh, <coughs> waaw léegi imam man euh, li mu wax dëgg la mais léegi beneen problème bi nga xam ne moo nekk ci ci ci réew mu Sénégal fii hmm. mooy ñi nga xam ne dañuy miraas te mënuñu miraas ah. Euh, waaw imaam ak euh, ñaari euh, cest kii de ku nekk wut ku lay miraasal miraaskat yi mbëkkante kii di wax lii kële di wax lële fadilatul imaam loolu mooy problème waaw wasafta daa wa sharaftu dawa aha waaw yow da nga jos ni tige problème bi pire nag mm-hmm. mooy al muqiim mm-hmm. maanaam ki nga xam ne moom mooy taxawee mbiram miraas bi mm-hmm. kooku lu mat a bàyyi xel la am na koo xam ne lam cay am lay seet <coughs> waaye mënu ko gis nga loo ci jaxase yow yaa koy fay yow miraaskat bi loo ci yàq yaa koy fay maa ngay fàttaliku dañ ma mos a yen benn joxu dugub xam nga yow gëj ngaa bay waaye xam nga joxu dugub waaw ñu ma ko mm-hmm. dama jox ko diw sàngam asaka la mm-hmm. sàngam dafa jàng miraas ba wow koŋ mm-hmm. ma ñëw jox bi ne ko diw ma ko yónni mu ne ma lan la ma ne ko mu ne asakaay diw mu ne ma laa ne ko daanu ne ah, mu ne ma daanu na de kii ba muy dee jugub yaa ngi pal pal ñorogut kon kenn du ko génnee asaka gerte yaa ngaay mbereng ñoragul kenn du ko génne ba asaka baada islaahi baat yi lañ wax baada salaay baat yi bu dee toolab dugub fokk si mu dem ba ba ñor kon ku ca dee dañ ko génnee azak kon li nga wax ngi noonu mu ne ma soo demee ne ka daanu na waaye yóbbulaat jox bi du ma ko jël wax waruñ ko génnee azak ma jël joxo dugub boobu yenn waat ko fekk miraaskat bi ci àll bi ne ko sëñ diw nee na juum nga de asakaay diw mii nga génnee waruñ koo génnee gum parce que bi muy dee dugub jaa ngi pol pal-pal nga xam ne kenn mënu caa lekk bu doon mang bu doon mango sax duñ ko génnee ah, azaka waaye bu doon tàndarma la mu ngi meen rek ci la nekk menee nekk meene yam palpal jërul pelem mm-hmm. duñ ko daan waxee ci daara mm-hmm. mu ne ma ne ko daanu na maag mu ne mu ne mu faa xalangu nga naan ma lan xam nga ni mu nangoo mu ne ma faa xalangu faa xalangu mu ne ma nag am na koo xam ne démb laa ko jox ñetti jox te yëg naa bojj na ko maa koy fay kon responsable yow mi miraas loo ci yàq rek imaam yaa koy fay dañoo war a moytu di koy am na solo euh, imaam euh, waxtaan wi am na solo xam-xam bu xóot la waxtu itam so daanaka jeex na mais damay laaj léegi euh, comme Sénégal li ñu décidé mooy duñ miraasati parce que bu waa ji faatoo moom dañuy lijjanti rek mm. bu dee kër moom xel xalaatul jaay ko parce que ñoom jàpp nañ ne seen waajur a amoon chance am kër mais ñoom amuñ chance am kër. <laughs> donc kër gi fi nekk ci la ñuy def moom la ñuy xëccoo waaw ci la ñuy gar seen bakkan. <laughs> est-ce que léegi charia mayut mayut mayut kër gi moom. Hmm. mu wax fu kër gi. moo gën de. man de mu wax moo gën waaw bu ko defoon. am na nag ñu koy def. waaw te charia nangu na ko. Hmm. parce que defe naa charia nangu na nga wax. wax ci jox kuy doon. ci jox kuy doon waqaf bokkut ak euh, wasiya. waaw naam charia nangu na hmm. mu ne waqaf na naa sama kër gi famille waqafle naa ko mooy jox naa leen ko ñu dëkk mm-hmm. bu doon bu doon taamir la wax nag mm-hmm. indi na problème mm-hmm. parce que ku dee rek ñàkk na dëgg la dëgg la waaye bu ne waqafle naa ko nag ku nekk fa nga nekk yaa fa moom ki amoon ñaari jabar appartement am na ko fare mm-hmm. sa waqaf sax dañoo bëgg mm-hmm. ah, ñu jagleel ahlul xawaïj mm-hmm. ñu gën a gën a sonn ñu gën a sonn ko am kër génn ko am kër di génn loolu moom charia nangu na loolu sama kër waqaf le waaw mawquf lil muslimin waqfan aw waqfan lil muslimin waqfan li usrati bokk lu dara moo ko defal koo nag waaw waaw waaw imaam li li wértu wóor moom mooy Sénégal am na kilifa yu faatu waaw ñu ngi fii seen alal kenn miraasu ko hmm, bari na dafa bari seen doom yaa ngi rayante hmm. kilifa yoo xam ne ñuy waa waaw dégg nga hmm. buñ la waxoon daye bi ñu toll sax ba léegi kenn miraasu leen donc alal ji mu ngi yàqu finalement ñoom ña waroon doon sax dem nañ ba faatu loolu war nañ ko corriger mais jàpp naa ne lii aussi eh, imam responsabilité jullit yëpp la il faut ñu toog jublu ci miraas wutal ko ay cabinet wutal ko mbir yoo xam ne am alternative mais suñu ko bàyyi ku nekk dem ak say idée individuellement problème rek lay posé parce que aajo la te jullit yi soxla nañ ko kon loolu daal mooy li nga xam ñun sax imam la ñu def loolu mooy ñun dañoo dañuy dégg ñu naan vacances citoyennes ñun ren dañuy def mirage citoyen dañoo bëgg ci vacances yi ñu koy projeté comme yàlla dimbali nañu ay techniciens lañ ci ku ci mel ni suma xarit Oustaz Souleymane sàmm maa ngi koy nuyu moom dafa sawar yooyu dëgg yàlla ay xarit yoo xam ne tey soo leen ci wooyee ak ñoo xam ne ay sociologue lañ ñu toog nga teg projecteur bi def ko xale yëpp ci jumaa ji foofu di koy seetaan wane leen lii mooy miraas nga xam ne soo ca mënta jàng sax ba mën ko def waaye da nga xam ne pratique bi la ëllëgee si bu sa bu sa jur jógee buñ ah, ko mm. a am lii ñu ngi ci jàkka ji di ci góorgóorlu nekk ci téere yi mm. ñoom ñëpp dañuy bokk ci programme boobu mm-hmm. dañuy teg suñu formation yi ñu doon defal mm-hmm. foofu ci Égypte dañu doon jàngal ni ngay miraase mm-hmm. ak nooy waxee nit ki ba xam ne lii la yàlla wax de transmission bi nga moom ngay transmettre xabaaru yàlla bi wala li mu dénkaane ci miraas bëgg nañ ko def ci vacances ak ñoom ak télévision yëpp yi nga xam ne ñu ngi ci soxla dañ ci dem dañ ci vacances ci ñi nga xam ne ñëpp soxla nañ programme boobu ci wàllu miraas incha allah dem ci waxtaan ak ñoom ba nit ñi xam ne lii ak yàlla la li may tëjee nag mooy gërëm leen bu baax parce que fii dolli ma fi dara aw ma lu ma fii dolli man dama wax ne euh, kàddu diine ji foofu soo fa demee jàngeekaay la parce que nit ki am na ko xam nga ko xamul mënu la laaj tey li ma bëgg a wax ni yaa ma ci dimbale imaam daam yaa ak a alaaj yéena ma woon ne ma lii a wax nangam ak nangam suñ ko defee man ma mën a joxe sama kàddu kon maa ngi leen di gërëm seen taxawaay di gërëm borom kër yëpp Sénégal yëpp nag sama samay soxna sama yaay nag mu may seetaan ca Gambie maa koy nuyu baax ak a ngi koy nuyu waaw moom ku bëgg alaaji Abdou Aziz waaw kay sama sëriñ yëpp soxna Ndey Safi si Hadji Malick Maodo ak soxna euh, Hadji Malick Maodo ak si Ahmad Tiyaan si Mouhamadou Mansour suñu xam ne tey moo ñu dénk jumaay papam bi mm. ñëpp ñu ngi leen nuyu ndax ñun ñuy seetaan ñu leen wax ramadan karim jërëjëf jërëjëf oustaz euh, Mouhamadul Amin Sakho defe naa mbokk yi doon topp émission bi yëpp wuñ ma ci invité gi te daara daara dundaat ndax dëgg yàlla xam-xam bu rëy rëy rëy nga fi joxe wane nga fi tam ne doomu ah, soxna yi dese nañ ne lu ñu war a xam mhm. dese nañ dañ ko dañ ko dañ ko jàng su ko defee duñ def lu dul ànd ñi doon topp émission bi yëpp ñaanal la yàlla mhm. ndaw nga yàlla def la mag def la mag te barkeel la yokk sa xam-xam may la wér nga continuer di jëriñ xeet wi ndax xeet wi soxla na nañu mel ni yow su ko defee yéen ñi doon topp émission bi jataay bi yàlla bu mu lu ngeen fi dégg te muy yiw yàlla yàlla yàlla nañu yàlla ci mën koo jëfe njuumte yi ñu ñaan borom bi mu jégal ko su ko defee kër gi yàlla suqali ko xale yi nekk ci technique bi nii di ma xaar ñoom ñu am yitte lañ ci émission diine yi yàlla def leen mag te barke seen dund dafa leen réussir seen projet maa ngi leen jox daa daje incha allah ajjuma ji ñëw yàlla nañ ci egg te te te passé ko asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ala bahrin rajad multamisan fihi sidaadan min awaz لعل فيه للنبي تبصرة والله نسأل الهدى والمغفرة والعون والتوفيق والإخلاص والتوبة النصوح والخلاص